hi Jerju hi lan la ku xew Jerju am na noo mel de <laughs> eh, sama xarit bi di maa la gisoon Gàmbi booba kenn gisul eh doo déglu yow maa ngi lay waxal lu baax xàmmeewu leen ko Aïda Samb déet bu leen bu fi kenn ñëw di photo yaa ngi dégg kon war nga ma mën a fayal du dëgg. <laughs> moom la mi ngi nii dafa xaw a am nu mel rek mais moom la <laughs> moom la moom la dégg ñaata la mu ne ñaata la dégg nga daf ma ko da koy fay fa meilleur kenn du moom sàmb na nga def. I am. good.